wa rahmatullahi barakaatu bokki jullit yi noo ngi sant yàlla sunu boroom di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa di leen nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii di fàttali sunu bopp di leen fàttali ne sunu boroom boo demee ci alquraanul karim wala xadis wala nga dellu ci mbindi sëriñ bi dañuy soññee ci ñun ñëpp ñu futtiku di liggéey di ñaq waaye nag boo futtikoo liggéey ñaq ba am dañu laa soññaat ci ñuqi mooy li nga am nga delloo ko sunu borom fàgg lu lew ba am ca loo suturloo sàmme ko sa ngor ak sa diine waaye bul fàtte xàq sunu borom bu ko fàttee delloo yàlla mi nga xam ne moo la ko jox loolu lañuy ñuy wooyee ñuqi ñuqi nag mësta jóg ci lislaam ba diine ji wàccee ku tedd ka da daan soññ saxaaba ya ci ñuy ñuq seen alal di ko def ci yoonu yàlla ba tax na am na ñu ca ràññi ko lool ba fii mu ne ñiy gëstu mbo mboor wàllu mboor te mooy taarix dañu koy waxtaane sëriñ bitam bi mu ñëwee di yeesal diine ñuqi ak yoon wi ñoo ànd lu mu mos a sémbu lu mu mos a naal da koy yëgle ñépp laxasaayu ànd ko ak moom ba mu naalee jumaa ji dafa waxoon ne na kenn ku nekk joxe ñaar fukk ak juróom-ñett ne ñépp nag laa ko sant kenn ku ne ci yéen yaay sama jëwriñ ci sa njaboot xam ngeen ne sunu kilifa gii fi nekk sémb na sémb yu rëy naal yu rëy yoo xam ne bis bu sottee ndamul lislaam lay doon waaye itam e, yokkute lay doon ci réew mi waaye mott li yéene ak bëgg-bëggu ku baax ki la radiyallahu anhu moo tax ñun ñëpp ñu war a gën a jaaju gën a laxasaayu naam am na ñu ci nekk de am na ñoo xam ne seen dara du ko fekke waaye nag nanu soññ sunu bopp su soññ sunu mbokki taalibe xam ne ñuqi ci jaamu yàlla la bokk bisub ajjuma bi ñu teew ci jumaa ji yàlla ba mu ko soññeetam wax ne bu ñu noddee bisub ajjuma na ngeen lagg dem ca euh, euh, barab ba ñuy tuddee yàlla te bàyyi mbiri àdduna da caa teg ne bu ñu sëlmalee nag fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillah bu ñu sëlmalee na ngeen dellu nag ca fa ngeen nekkoon sàkku ci xéewali yàlla ji ku ne xam na ne wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiquuna moo ci tege kon yàlla ni mu soññee ci julli ni la soññee tam ci li nu am ñu koy ñuqi di ko delloo sunu borom tey ñuqi di fab sa alal di ko def ci yoonu yàlla day wane ne yow mi kat sa pas-pas dëgër na day wane ne yow mi kat bàyyi bàyyi nga xel sunu borom te su ëllëgee la mu lay fayee day kawe sa njort inna almuttaqiina fi jannatin wa uyun axidina ma aataahum rabbuhum innahum kaanu qabla zalika muxsinin kaanu qalilan min alleyl ma yahjaun wa bil asxaari hum yastagfiruun da caa teg nag wa fi amwalihim xaqun lisaail walmahrum yàlla ni mu santaane ñu gëm ko moo ki mu yónni muy ko tedd ka noonu la santaane ñuy fab sunu alal di ko def ci yoonu yàlla te xam ne alal ji yàlla moo ko moom dañu ko dénk rek aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fii mu tekke nag ñi yàlla tey ñuqi yàlla dana leen fayee toyaaba ju rëy fa alladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir kon ab jullit wërta téye alalam rawatina taalibe moom taxul ñuy wax day xam ne li mu yor yàlla ko moom moom sax yàlla ko moom kon nag na delloo alal boroom te mooy yàlla sunu boroom wa ma lakum an laa fi sabilillah wa lillahi miraasu samawati wal ard yàlla mi dul jeexal soo defee ci mbiram lam lay fayee kenn du xam nu mu toll doomu aadama nag teraange àdduna ji muy sàkku lam ca am da cay nab nabi defe ne bu tàggoo ak moom mu ñàkk ba faw te xamul ne teraangay àdduna dañ cey war a sàkkoo teraangay àlaxira àlaxira moo dul jeex fa ma utitum min cheyin fa mataawul xayaati duniya waaye wa maa inda allahi xayrun wa abqa lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun kon li nga yore dana jeex wala bu jeexul nga dem wàcc ko fi kon nag na ko jënde la nga xam ne su ëllëgee moom du jeex te nit ki na xam ne sunu borom tëkku na ki téye alalam du ko def ci yoonu yàlla walladina yaknizuuna zahaba wal fiddata ba aaya ja daanu ku ne xam na la ca yàlla wax tey tam su ëllëgee kenn ku ne ci nun li nga am dañ lay laaj foo ko jëlee waaye dañ lay laaj foo ko def lu baax li nga yéene nag bu ko waaj lu baax kenn du ko waaj ndax soo yoree loo mën a def ci yoonu yàlla xamoo kañ ngay faatu wala la nga yor kañ lay laatu balaa laatu wala ngay faatu nag def ko ci yoonu yàlla na nga xam ne sooy def ci yoonu yàlla yaa ngi sant yàlla te sant yàlla ci daraja yi gën a kawe ci jaamu yàlla ca la bokk nit ñi nag seen am-am munta tolloo loolu mbir mbirum sunu borom waaye kenn ku ne la nga man ak nanga nga mane noonu nga war a jëfe ki am tuuti na def tuuti ki am lu diggu doomu na def lu dugg diggu doomu waaye ki am lu bari tam na def lu bari ndax wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq te it sooy fab sa alal di ko def ci yoonu yàlla dana ñoŋal sa alal dana tax ba euh, dara lu koy euh, yàq mën na caa bañ a egsi ndaxte ku tedd ka nee na am amwaalakum bi sadaqa su ngeen bëggee seen alal ñoŋ mucc na ngeen koy def ci yoonu yàlla te itam na nga xam ne yàlla kii fab alalam di ko def ci yoonu yàlla dafa mel ni yàlla da koo tànn ci biir nit ñi ndax yàlla day tànn la gën bàyyi fa la gënul maa kaana allahu li yadara almuminina ala ma antum alayhi xatta yamiza alxabisa min altayib day mel ni yàlla day tànn la gën bàyyi fa la nga xam ne gënul te loxo bi joxe moo féete kaw kon moo gën bi féete suuf alyadul ulya xayrun min alyadi sufla nit ki nag mën nay waaj def ci yoonu yàlla ba far faatu ñëw te loola dara jëru ko wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya ahadakum almawt fa yaqula rabbi lawlaa axartani ila ajalin qarib nit bu demee ba faatu ñëw mu naan su ma fi yàlla bàyyi woon tey fa assad fa assaddaqa wa akum min saalihin su ma fi yàlla bàyyi woon ma julli ji wala ma woori wala ma aji waaye danaan kon ma ñuqi fab sama alal def ko ci yoonu yàlla am na benn xadis boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali nee na dafa am ku ñëw ci ku tedd alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa rasulallah ayu sadaqati aadam ne ko def ci yoonu yàlla ana lu ci gën qaala mu ne ko at tasadduqu wa anta saxiixun saxiix taxsha al faqra wa taamuru al ghina ne ko bi nga ne wér wér céng say cër ne càndang dara jotula la saa soo xëyee di wut a am di ragal ñàkk nga def ci yoonu yàlla ca jamono jooje moo gën waaye wala tumhil xata ida balagatil xulquum qulta li fula li fulaanin kada wa li fulaanin kada wa li fulaanin kada waaye néeg ba nga xam ne cëgg desitul ci guy néeg ba nga xam ne dara desitul dee rek moo ca des nga naan nag nañ ma joxal diw nangam nañ ma defal ca liggéeyub sëriñ bi nangam nañu ma defal ca jumaa ji nangam nee na am na lu ko gën seytaane nag soo bëggee def ci yoonu yàlla danaa la déedéet soo ko defee da ngay ñàkk de li nga yor day jeex de waaye nanga xam ne lam lay womat moom seytaane gënul lala yàlla womat moo gën alcheytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfaxsha wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadla wallahu waasiun alim li ngay def nag ci yoonu yàlla bu ko puukarewoo ndax soo ko puukarewoo doo ci am dara puukarewoo nag mën naa doon di ko tudd di ko tudd saa su nekk ci saw làmmiñ wala di ko wane di ko fésal ndax bëgg ñëpp xam ko yaa ayuha alladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil wal ada kalladi yunfiqu maalahu ria annaas wala yuminu billahi wal yawmi fa mathaluhu ka mathali safwanin alayhi turaab fa asaabahu waabil fa tarakahu salda laa yaqdiruuna ala cheyin mimma kasabu wallahu laa yahdi al qawma kon nag li ngay def ci yoonu yàlla jërul di tudd jërul di wane bu fekkente ne soo ko fésalee nag euh, day jur aw yiw day tax keneen man caa roy ko fésal ndax keneen man caa roy in tubdu sadaqaati fa naim fa niim ma waaye bu fekkente ne nag soo ko feeñalee njistal mën na caa tàbbi wala ndéggatal nang ko nëbbu ndax mooy tax nga gën a mucc wa in tuxfuuha wa tu'tuuha alfuqara fa huwa xayrun lakum xam ngeen ne bi ku tedd ko di lim ñi nga xam ne su ëllëgee sunu borom da leen di làq fu yàq yéegul tàngooru safara ak fitna bis pénc duñu ko gis duñu ko dégg boole na ca wa rajulun tasaddaqa axfaaha xatta la taalama shimaaluhu ma tunfiqu yeminu mooy kii def ci yoonu yàlla te nëbbu li nga xam ne moom lay def mag ñu njëkk ñu nag nañ daan defee seen alal ci yoonu yàlla buñ koy nettali da ngay defee ne léeb la ndaxte abu bakrin as siddiq yàlla na ko yàlla dolli ngërëm mos naa xëy buub la mu am lépp ñëw yët ko rasulullahi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko analoo bàyyee sa njaboot mu ne ko bàyyee naa leen yàlla ak yow bàyyee naa leen yàlla ak yow lam leen bàyyee doy na sëkk omar ibnul xataab mos naa fab genn wàllu alalam ñëw yët ko ki yàlla yonni muy ko tedd ka alayhi salaatu wasalaam saad ibn abi waqaas mos naa xaaj alalam ñetti xaaj fab benn ba ñëw jox ko ki nga xam ne mooy ku tedd ki alayhi salaatu wasalaam kon ñoom noonu lañ daan def sina Usmaan mi ñu mbaa yàlla nga xam ne toppatuñ ko dara julli baax na lool waaye taxul ñu mbaa yàlla ko woor baax na waaye taxul ñu mbaa yàlla ko aj màkk baax na waaye taxul ñu mbaa yàlla ko ana lu tax ñu mbaa yàlla ko mooy fab alalam def ci yoonu yàlla ba ku tedd ko wax ne maa darra Usmaana maa faala baada al yawm Usmaan bi bis ni tey lu mu defati jig na ko moom la ko baax kii nettali naan xaazab na tayhi wa ridwanan wa maxfiratan anhu qad xutta ijhaarun wa israaru kon la ko yàlla fayee muy dëkkoo na ñaari doomi ku tedd ka am na ngërëmul yàlla am na njëggalul yàlla yàlla toppatu ko lu feeñ wala lu nëbbu loola la ko ko may mooy daan fab alalam di ñuqi di ko def ci yoonu yàlla sunu boroom am nag ci saxaaba yi ko xam ne mu ngi tudd Ilya ibnu Zayd nee na dafa dafa jëkki ba guddi mu yewu ci ay nelawam jóg daal di naafila la ba xolam sedd mu jooy dal ne yow sama borom yaa santaane jihaad ne ba noppi xeemem loo jaam ñi ci jihaad waaye joxoow ma waaye awma xéewal gu ma mën a euh, gu ma dimbandikoo ba mën a jihaad te itam ku tedd ki amut lu ma mën a waaja di mën a dem defi jihaat waaye képp koo xam ne ameel na ma àq di ab jullit bis baal naa ko àq ja moo xam muy ci sama alal wala sama jëmm wala sama der ba mu xëyee nag ñëw ànd ak nit ñi ñëw ca ku tedd ka ku tedd ka ne ay na al mutasaddiqu haadihi layla ana ki sàkk sarax bi bii kan la ana ki ñuqi bii kan la falam yaqum ahad ñëpp ne cell mu ne ay na al mutasaddiqu haadihi layla fal yaqum ki ñuqi biig na jóg mu jóg nag daal koy xabaar la mu def ko tedd ki ne ko abshir bégal fa walladi nafsi bi yadihi wat naa ci ki nga xam ne su ko neexoon li may wax du yegg laqad kutibat fi zakatil mutaqabbala ñuqi gii nga def biig sunu borom boole na ko ca ñuq ya mu nangu jëf ya nangu sunu borom boole na ko ca muy baale gi nga baale képp koo xam ne amel na la àq moo tax sëriñ bi ne walazimul infaaqa fi sabili man lahul qulub wal fiaal wa zaman da ngeen fab li ngeen am def ko ci yoonu yàlla mi nga xam ne lu ngeen jëf gis na ko lu ngeen yéene itam xam na ko amma tasadduqu ma al infaaqi fa jamaa al xayraati bi ittifaaqi fab sa alal def ko ci yoonu yàlla nee na ak di sàkk sarax nee na luy toyaabo ma nga ci biir loolee sunu borom nee na nag booy fab sa alal di ko def ci yoonu yàlla na nga seet la nga ca gën a bëgg nga di ko jox yàlla bul fekk loo xam ne kenn soxlawu ko nga di ko jox yàlla lan tanaalul birra xata tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allah bihi alim la ngeen def ci yoonu yàlla yàlla xam na ko doom aadama nag rawatina ndaw kundaa yi dañoo dañoo doon ñoo xam ne dañoo napp ci alal doomu aadama su ko yàlla joxoon li ci kaw suuf lépp it dana téen ne ko soo ci boole woon asamaan si day day gën a baax rek yàlla nee na qul law antum tamlikuuna xasaa'ina rahmati rabbi idan la amsaktum xashyata al infaaqi wa kaana al insaanu qatura su leen yàlla joxoon maa ngi seenam yépp koy itam da ngeen koy téye du ngeen ko def ci yoonu yàlla ndax doomu aadama dafa bindoo nay nañu xam ne lépp loo def ci yoonu yàlla du tex sa alal wàññiku da koy yokk day tax mu gën a sakkan day tax mu gën a am barke ma anfaqtum min xayrin fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru xayru xayru raziqin moo tax ku tedd ku tedd ka ne ma naqasa maalun min sadaqa nee na bul defee ne sa alal boo ko defee ci yoonu yàlla day wàññi ko déedéet day yokk xamal ne li nga yor sunu borom moo la ko jox te moo ko moom li annahu subhanahu taala huwa alladi aataaka daaka almaala na nga xam sunu borom li nga yor moo ko jox fa xaysuma aksarta fiihi talafa li wajhihi ataaka jàllal xalafa kon loo yëkkati def ko ci yoonu yàlla sunu borom dalay wuutal wuutalal lu gën la nga def ci yoonam wi te yàlla yéene jaam ñi aw yiw bëggal leen yërmande ak njëgal ak tuyaabo moom rek a tax mu dee leen soññ ci ñuy fab seen alal di ko ñuqi di ko def ci yoonu yàlla wa maata alayhim law amanu billahi wal yawmil axir wa anfaqu mimma razaqahumullah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 محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رسول الله إله إلا salaatu wasalaam wax ne wax ak saxaaba ne leen waaye yéen seen alal ak alali jàmbur ana moo leen ci gënal ñu ne ko yaa rasulallah ma minna ahadun illa maaluhu ahabu ilay koo seen rek muy dem xamal ne alala moo ko gënal alali jàmbur mu ne leen fa inna maalahu ma qaddam wa maalu waarisihi ma axar mu ne sa alal de mooy li nga def ci yoonu yàlla mu jiitu la boo faatoo fekk ko fa alali jàmbur nag mooy li nga dee bàyyi fi nee na itam bis doom aadama day da danaan sama alal ji sama nangam sama kër yi sama oto yi sama nangam waaye nee na li ngay lim lépp ñett rekk nga ci am yaqulu al abdu maali maali wa innama lahu min maalihi salaas maa akala fa afna aw labisa fa abla aw aata fa aqna nee na li nga lekk ba mu rees soo ne yaa ko moom wax nga dëgg li nga sol mu ràpp yaa ko moom wax nga dëgg la nga jiital ci bàmmeel mu la fay nekk yaa ko moom wax nga dëgg wa ma siwa dalika fa huwa dahibun wa taarikuhu linnaas nee na lu dul loolu bis dana ñëw nga wàccee ko nit ñi dem bàyyi ko fi kon nag nañu ñuqi euh, li nu yor nanu ko def ci yoonu yàlla te xam ne sunu kilifa sémb na sémb yu rëy yoo xam ne ñëpp a war a laxasaayu kenn ku ne def ko muy sab liggéey jataay bi mu toog nag képp ku mos a toog dangay amu fit soo fit day yokk ndax da ngay xam ne loo song danga ko daan ndax ñëpp a cay jàpp ha antum haulaay tudaaw na li tunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabxalu wa man yabxal fa innama yabxalu an nafsi wallahu alganiyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qawman gayrakum suma la yakunu amsalakum moo tax ku baax ki day danaan def alalam ci yoonu yàlla moo tax Cheikh Sidiye nee na ko amoo senn sikk soo amoon sikk de mooy njariñ li ngay jariñ jaame yàlla yi suba mooy sa sikk wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naf'ul wara fi subhihi wa masaihi moom it ku baax ki lam daan ñaan yàlla mooy nekk nekkal fi jaame yàlla di leen jariñ di leen liggéeyal wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan war rahma moo tax mag ñu njëkk ñi nga xam dañoo raw li ñu rawee du dara lu mooy fab seen jëmm jox yàlla fab seen alal jox yàlla fab seen lépp rek jox yàlla xam ngeen ne ñaar fukk ak juróom-ñett yi nga xam ne moom la tobbe woon moom ku baax ki ne na ko ñëpp joxe bam koy topp bi fekk na maam Ceerno Birahim jox ko ñaar fukki junni ak juróom-ñett moom mu sase ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett noonu la mag ñëpp doon def sëñ axmadu Ndumbe noonu la doon def sëñ Aliou Touré noonu la doon def noonu la mag ñëpp doon def di fab seen lépp di ko jox sëriñ bi muy sëriñ Daaru muy sëñ ma Masamba Diop muy ñëpp maam Cheikh Ibra Fall mësta génne asaka xam ngeen lu ko waral la mooy asakal lay tax mu war la mooy nisaab da ngay denc alal ren ba déwén moom nag mosut denc dara ren ba déwén lu mu am jox ko Cheikhana Ahmadul Xadim moo tax mosut génne asaka kon nag loolu mooy diine loolu mooy ngor loolu mooy yoon wi kilifa gi kon sémbu na ay sémbu naal na ay naal yoo xam ne dafa wa dafa ci war a jàpp ñëpp war a laxasaayu ba ndam li nga xam ne moom la ci séentu mu amee ko nam ko bëggee te xam ne ku mënta leble te mën a fay bor yàlla kenn du ko lebal. waxin la rek wa aqridullaaha qardan xasan jooju mu wax soo koy firi dëgg dëgg dëgg mooy soo munta leble tam nga fay bor kon nañu euh, delloo yàlla li nga xam ne moom la ñu jox wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah huwa xayran wa adama ajra li ñuy def te yàlla tax bis bu ñu ko fekkee danañu gis te yàlla rek moo mat a jëfal kon nag sémbu baa nga noonu liggéey baa nga noonu te lu mu song soo ko daanee dana song leneen euh, fii mi ngi fiy nekk te yàlla na fi yàgg lool te bu fi yàggee yàlla nañ ko ànd ak moom te bu ñu ko ànd moom yàlla na ko yàlla nangu ndam lu mu ci am rek su boobaa ñoo koy bokk ak moom ñaq nag baax na lool waxoon naa ko ci tàmbali waaye ñuqi nag mooy tax ñaq am njariñ sooy ñaq te doo ñuqi danga nga da nga euh, réer da nga sànku laka shukuriya ala alxalaali yaa maaxiya al imlaaqi wa dalaali al imlaaq mooy ñàkk mooy ki amul dara wa dalaal mooy ki am ba noppi nag defu ko ci yoonu yàlla salli salaatan tusbitul xalaala indi wa minni tamnau dalaala jooju itam mooy nga am ba noppi defu ko ci yoonu yàlla wal taqini dalaala wal idlaala wa qut lana maaridal xalaala soo amee ba noppi di ko def ci yoonu yàlla nag mooy ngërëm walil makaarimi qulil axlaaqa wal taqini dalaala wal imlaaqa yooyu yëpp wax na ko fu ne moom sëriñ bi ak wa in wajadtahu fala tudayiaa wa man yudayi alxalaala doyiaa am liggéey ba am ba noppi defoo ko ci yoonu yàlla di ko fooyee bari na ci bari na ci jamono ji waaye yàlla nañu ci yàlla musal nun ndax an qis iyaali min ad-dalaali jamu wax bu ñu ca e, langaamoo rek e, kon ñaan nga moo nuy dal yàlla na yàlla bàyyi fi sunu kilifa ci sunu kanam yàggal ko fi lool dolli ak wéram dolli ay ndamam su ko defee mooy jàmmi diine mooy jàmmi réew mi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa واشهد ان محمد ashhadu anna muhammadan rasulullah وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادة نادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا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 فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات مقام الرأس في أعضاء الذات ففرغوا لها القلوب محل نظر الرب وطهروا لها الثياب والأجساد تفوز بالقبول والقرب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه المشكور فيهما بالجم من عمائه وصلى وسلم على خير مبعوث لنشر الحق والطي الباطل سيدنا محمد وابل الخير الهاطل وعلى آله وصحبه الذين صيروا دين الشرك شر عاطل الذين بذلوا للدين حقه بلا مطلماط أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واعلموا يا عباد الله أن خير ما اتخذتم وصلة لربكم ورضائه توحيده وإدامة شكره وثنائه وصيانة ودائعه وإقامة شرائعه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات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 وفقنا الله وإياكم لطاعته وأتم تقصيرنا بعفوه وحلمه وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه آمين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalah qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 asalaamaaleykum.